235 429 Serigne Fallou Mbacké Sow Mbacké 2 200. <laughs> jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan suñu chaîne bi di Assalaamy TV ak rajo bi tamit di Assalaamy FM 99 point 0 tey ñi ñëw seet jëmm yoo xamante ni euh, doon jànkat boo xamante ni doon basalier en même temps di ko seetee Euh, bag bi borom allah akbar borom ndaw yi moom lañ ñëw seet tey. waaw suñu wàllu ñu bàyyi la nga nga nuyoo wax yooyu yaay kan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Assalaamy TV ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu tubaab wér waaw di leen nuyu yéen waa Assalaamy TV di leen jaajëfal bu wér ndax wax dëgg yàlla li yomb ngeen jógee bu sori ñëw fii wax dëgg yàlla rien que pour. pour interview ak ñun ñu leen di sant bu baax di leen nuyu di leen ziare. yi. waaw neuf mois yi moom ku xam-xam classe terminale moom wax dëgg yàlla classe bu difficile la classe bu métti la classe bu pression dëgg yàlla moom dawe moom du leen lu <laughs> pression bu doon génn la rek loolu rek la. métti woon na délibération yi tamit métti woon na euh, composition yi euh, avant ñu dugg sax su composé mën nañ xam kan mooy Sëñ Fallou si école. ah ñu doon say comportement ci biir école. <laughs> ah Sëñ Fallou de mën nañu ko misaal benn benn élève bu sérieux rek benn élève bu sérieux wax dëgg yàlla. bac bi desee tamit ay quelques jour mhm. pression boobu noonu ndax bac bac moom doon loo xamante ni. Euh, examen bu yéema la fii ci Sénégal. Mhm. nan nga dundee woon bag bi tamit. ah bag ah, sant yàlla rek ndax bag bi moom wax dëgg yàlla ku xam bagu Sénégal moom xam ni bagu pression la ndax nit ñi rek <laughs> loolu nit ñi rek dèjà day nañ la pression waxuma nag dèjà bag bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay xalaat ak genre yooyu noonu. te classe dafa nekk classe boo xamante ni classe bu metti la lool wax dëgg yàlla. classe bu bu bu la lool lool sax waaw dëgg yàlla. sa diggante ak ndax yaa ngi doon def cours normal ak moyen composition yi. waaw ñi ngi doon def cours yi normal moom wax dëgg yàlla trois ans yi moom ab euh, di ko dalee seconde ba léegi moom wax dëgg yàlla ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan ndax suñu benn professeur dañu doon wax que ni classe de terminale moom ça se prépare à partir de la classe de seconde moo tax ñu doon def suñu kéemtalaay kàttan pour pour pour décrocher suñu suñu bac dëgg yàlla loolu composition terminale mooy nii moom ma na kay waaw baaxoon na kay. Ah. ndax premier semestre ma am na treize deuxième semestre aussi treize. ndax boo xoolee sa composition normalement. Mhm. képp ku am moyen boobu noonu normalement a am de loolu la de ndax euh, li ma doon wax sànq rek classe terminale moom dafa dafa dafa dafa nekk classe bu loolu ndax euh, pression beeg genre. te pression bi ñu lay teg ak yooyu rek nit ñeeg suñ wàllu mbaa am nga bag amoo bag loolu rek boo koy xalaat rek <laughs> da lay jar ne nga reyante bi bëgg dee wax dëgg yàlla. jour de bi. Hmm. ñëwoon nañ ba bëri woon na ay nit. Hmm. ñëpp taxaw toog. Hmm. ginnaaw ba ba nga déggee sa tur moment boobu noonu ak yuuxu yi nga yuuxu ak allahu akbar bi nga xam ne foo toll si Sénégal ñëpp ngi koy déglu lan moo tax euh, turu allahu akbar bi nga utilisé ko. Ah, allahu akbar bi <laughs> man mi ko wax sax xawma lu ma wax loo ah, xëy na ak cant la rek jëm saa boroom ndax dëgg yàlla nga dëkk ci di nga dëkk ci di ñaan kenn moom mu may la moom wax dëgg yàlla yoon la nga nga sant ko dëgg yàlla moo tax allahu akbar bi moom mën nañ koo jàppee ak sant rek ak sant gu ñu jógee suñu làmmiñ jëm ci suñu borom dëgg yàlla euh, sëñ Fallou hmm. euh, euh, sa morom yi nga nekkaloon di defandoo classe am na ñu bëri ñoo xamante woon ñoo xam ne yeneen daan ànd. ñoo xam ne loolu leen loolu leen di wax. ah ñu wax ñu wax leen que ni ñu gën a góorgóorlu rek jàpp wu bàyyi ndax classe yu terminale moom classe nekkul classe yu caaxaan classe terminale dafa dafa nekk classe bu métti non seulement pression bi mais aussi euh, comme nañ ko xamee rek bagu Sénégal moom wax dëgg yàlla dafa yéeme lool ndax dëgg yàlla bu après délibération yi forum mu ñaan la am nga am nga am nga. loolu rek dafa lool rek dafa dafa yéeme moo tax boo ci nekkee mu wax dëgg yàlla defal la tout pour pour sa bac moom même boo demee second tour sax yow fexeel am sa bag rek ba foo romb ku la laaj laajee nga ni ko <laughs> am naa bac. Euh, la fois la wooyee woon ne la dama laa bëgg a benn interview man ak yow nga ne ma xaar ma laaj sa yaay sa yaay ba mu déggee woon nii amoon na ba mbégte boobu nan ko yëgee woon jour boobu. ah sant yàlla rek wax dëgg yàlla ndax sama yaay moom da cee da cee sonn lool lool sax dëgg yàlla sonn na ci bag bi lool lool lool moom tax na ci euh, bokk na ci nit ñi taxawoon bëgg ma am ko euh, euh, ci première tour ndax dëgg yàlla. lan nga bëgg si waaw ah, peut-être peut-être ay fac droit peut-être lettre lettre moderne peut-être soo waaye daal bëri na moom dëgg yàlla. Hmm. mais xamaguma exactement bu may kii yaar moment moment bi moment bi waaye. di nodd sama sama numéro bi wax dëgg moment boobu moom ma koy xalaat damay yëg mu rëy rëy rëy rëy rëy ah, dolli di sant yàlla rek ndax lépp moom la wax dëgg yàlla ndax boobu ba léegi moom laay ñaan tey mu kon dama koy gën a dolli sant rek. ah collègue yi de moom collègue na mu wax dëgg yàlla ndax am na benn gain boo xamante ne nii vraiment euh, on a tout fait ensemble mais finalement mujjut mujjut mujjut mujjut am te loolu dafa nekk euh, lu yéeme wax dëgg yàlla dafa dafa nekk lu yéeme daal ndax daa ànd ak ni chaque jour ngeen def exercice chaque jour ngeen di ngeen di réviser ensemble tey nga xëy mun la mun la amut bac yow nga am bac loolu dafa triste quoi loolu la. ak sa vidéo waaw <laughs> am mbag bi moom wax dëgg yàlla mbégte la rek mbégte mu rëy rëy rëy sax ndax li ma doon wax sànq rek romb nit mun la sëñ bi am nga bag nga ne ko waaw am naa bag loolu danga nga ciy fier non seulement boo amee bac da ngay da ngay da ngay libre bi bi nga daan kii yëpp si classe terminal day deñ loolu daal lu neex la moom am bac moom macha allah lu neex a neex la. vidéo bi aussi bi may daw laa ni bi ma bi ma jubilé ba pare laa ni laa ni waaju filmé ma bu ma ñëwee laa koy wax sama ne ko waaju filmé ma <laughs> bi ma ñëwee ci internet bi gis vidéo yi di circuler fu ma romb ñu am ma borom allahu akbar borom allahu akbar ma ni ah lii moom yéeme na di <laughs> sant la rek sant la rek ñu bëri sax ñoo ngi kii kii moo si kan na ñoo xamante ni ñoo ndax boromam moo ko may li mu am nii loolu tamit noo ko jàngatee waaw commentaire yi moom wax dëgg yàlla ay borom baax lañ moom borom ndax gis naa commentaire bu nekk nit koo xamul xamul la nga koy ñaanal vraiment amu seen fay daan leen ñaanal yàlla rek euh, xéewal yi du jeex rek dëgg yàlla. mais tamit am na ñu yenn commentaire am na commentaire yoo xam positif am na yoo xam ne négatif am na yenn ñoo xamante ne ñoo ngi naan yaa ngi yuuxoo waaye xamagoo luy luy ñëw prochaine xam naa ñu ngi lay wax université boo fa demee li ngay daj ci université bi yenn commentaire yi waaw xam nga nit ñëpp moom yowut ku nekk ak sa gis-gis rek. vidéo bi am na ñu ko gisee sant yàlla am na ñu ko gisee ay ay ay comédie. Hmm. Euh, ku nekk ak sa point de vue rek. Hmm. mais mais ñun moom jàpp nañ ni wax dëgg yàlla euh, li ne sunu kanam subhaanahu wa taala ñu dinañu suturaal daal dëgg yàlla yàlla na ma saa suturaal rek ak suñu Tuubaa. waaw di leen sant di leen sant bu baax di leen jaajëfal ci déplacement bi ngeen def ñëw fii waaw euh, di sant bu baax a baax rek di ñaanal sama yaay ak samay di ñaanal samay waajur gudd fan gu ànd ak wér ba leenu yaakaar suñu incha allah ñu gis ko incha allah di ñaan yàlla aussi euh, li ne suñu kanam yombalal ñu ko comme ñu ko defalee di ko santaat bu baax sa di sant suñu Tuubaa aussi jërëjëf 235 429 Serigne Fallou Mbacké Sow Mbacké <laughs>